daw leen gaaw abonné ci seen plateforme seen production ndax nag dara du leen rëcc ci seen histoire ak film ak programme yu am solo ñu leen tàmm àndil jamono bu nekk seen production Islam ca kanam ci noonu nag ndeysaan bi nga xamee ni ibu ñëw na fa nga xam ne mooy ca prison ba dal fa nga xam ne mooy chambre 14 quatorze maanaam fukkeelu sàmbur ak ñeent moo ngi dégg bruit yi ak coow yi ci yeneen bërëb yi nga xam ne ñoo dend ndax ay cour la cour bu nekk am na sàmbur yu fa nekk moom nag diggante quinze ak yenn sàmbur yi fa ci cour boobu la nekk nga xam ne étape par étape la cour bu nekk am na ay numéro sàmbur yu fa nekk ci noonu nag muy dégg ñenn ñi di jàng xeetu jàng yu bari ci ay xeetu tarixa yu wuute am ci ñoo xam ne sax day di dégg ñuy jàng yeneen xeetu jàng ba ci mbir yu bari yoo xam ne ay yëngu-yëngu la ci wàllu diina daf koy dégg ci biir prison bi mu xam itam ne ndeysaan ñu bari ñoo xam ne nekk nañ fi am na ñoo xam ne nattu ak fitna ak coono yi ñu dund yar na leen te jàngal na leen àdduna ba tax na gën nañu fonk seen culture gën a fonk seen diina ñoom daal xanaa kaso bi moo leen jaaxal waaye bu ñu xasee génn dinañu gën a teg ci yoon wi nga xam ne mooy yoon bi gën ndeysaan am na ñu bëri ñoo xam ne kaso bi corrigé na leen teg na leen ci yoon waaye itam naka noonu itam noonu la amee ñoo xam ne ñoom dañ faa gën a yàqoo ndax situation yi bokkul te itam tolluwaay yemul noonu nag bi nga xamee ne Ibou nekk na fa ñu présenté ko chefu chambre bi mbokkam boobu nga xam ne mooy activise bi moom la fa nekkal kooku daal di jël ay quelques bagages am ko ko comme ni ñu leen ko waxee woon ci épisode bi passé noonu nag moom Ibou mu daal di wéeru ci miir bi mu teg ko ci bërëb ne ko gis nga fii fu nit toog sax am amoo ko waaye man fii mooy sama place naa fi xaj-xajal ak yow ndax wax dëgg yàlla ñoo bokk dëkk ñoo bokk lépp kon dinaa la xaj-xajal fii. noonu nag mbokk ay activiste am boobu yaatal ko loolu ndeysaan nga xam ne fa saasa rek la ko commencé présenté nit ñi nga xam ne ay kilifa lañ ci chambre bi noonu itam nit ñi jox ko wàccuwaay bu baax Ibou gis yaatu ak mbaax ak ubbeeku ak social. ak jikko yu rafet yi nga xam ne gis na ko ci détenu yi nekk ci biir prison bi ndekete daal day mel ni mbon ak soxor ci biti la am waaye ci biir baax ak yaatu yaatuwante képp moo fa am ndeysaan mu gis nit ñi baax lool ubbeeku lool yaatu lool même ñi nga xam ne ñoom la bokkal tariixa ak ñi nga xam ne bokkul ñoom tariixa ñëpp ñoo yem mu gis waxtu julli bu jot ñëpp dañuy jug taxaw ñi nga xam ne dañuy julli ñoom ñu laal seen sijaada may leen ñu laal ay basang laal si jaada daal di julli am nañ imaam am nañ noddukat buy noddu comme niñ leen ko waxee woon ci épisode bi passé noonu nag Ibou daal di dal foofu waaye nag jaaxle woon na lool ndax tàngoor wi néeg bi dafa xat lool bari nit kenn tanul kenn ku nekk yaa ngi ci sa bopp mu gis nag ay nit ñu bari ñoo xam ne ñoom lu ëpp ca ñoom dañoo taxaw ñenn ñi dañoo toog nga xam ne ñoom tëdd sax mënuñu ko loolu nag jaaxal Ibou lool mu am ci ñoom yërmande lool mel ñoom ab groupe la boo xam ne dañ leen a ber nga xam ne lu ëpp ci ñoom yaramu neen la ñuy def ñaq tooy xep xet gu naqari nekkin bu jéggi dayoo ibut jaaxle gis ñenn ñi nekk à l'aise waaye ñeneen ñi nekkuñu ñu à l'aise noonu la laajee ki nga xam ne mooy mbokk activisme bi ne ko waaw lii ne lu ànd lu ko waral ñii moom lan lañ def dañoo feebar wala dafa am lu nekk ñoom ba tax ñu ber leen nii ñu nekk mbooloo moo xam ne daanaka mat nañ juróom fukki nit taxaw ne ñenn ñi sax amuñu fuñ taxaw dañoo toog ñenn ñi mënuñoo toog dañoo taxaw. ana lu waral loolu noonu mbokk activisme bi daal di ree ne ko fii mooy kaso lii mooy prison ne ko ñee nga gis ñu taxaw ne ñoom ak yow ñooyee benn atte yow wax nañ la ban jour lañ la war a atte nga xam ndax dañu lay tëj wala dañ lay baal wala sax ñaata lañ lay tëj kon yow xam nga ci sa bopp dara mu ne ko yéen la ñuy wax flagrant délit maanaam koo xam ne xam na ci boppam dara te itam létt nañ ko wala firi nañ ko nga xam ne kooku mën na fee ba a yàgg waaye ñun ñi nga gis ñu nekk en l'aise bu ñu mës a ñee ñun ñooy correctionnel koo xam ne xamul ëllëgam xamul tayam maanaam moom dafa nekk ci enquête ñu téye ko nga xam ne mën na fi nekk juróomi at duñ ko sax woo duñ ko woo xamul ci boppam dara ñooñu nag faaw ñu yaatal leen ndax bu ñu leen yaatalul dana métti dana métti lool ko xamul ci boppam dara koo xam ne xamul ndax dina génn wala du génn ndax dinañ ko àtte wala duñ ko àtte ak ñaata temps la fi a def kooku moom. wax dëgg yàlla ca dëgg-dëgg dañ ko war a yaatal loolu moo tax ñu ñu yaatu fi waaye ñee ngay seet ñoom ñoo ñu ëpp jàmm fuuf ndax bis bu sat dinañ leen woo ñu génn ku nekk xam nga bis bi ñu la war a àtte ak itam say mbir xam nga ci dara ñun nag sunu avocat yi dañuy daw ba sonn waaye xamuñ ci sunu mbir dara ndax du ñu woo te ci enquête la nekk noonu nag ibu xelam daal di dal xolam daal di féex noonu nag mu ne ko mbokk activisme bi waa man teemaa dem nekk ndax ma dund métti du ñuy dund mbokk activisme ni ko déedéet ëpp naa def yow xamoo lii xamoo kaso ku la xool xam ne nitu jàmm nga doo nitu fitna lii métti na ci yow loolu te ñeewante naa la lool man li may dund coono coono coono fàtte naa sama bopp ndax yow ndax yërmande gu ma am kon yow li ma lay ñaan mooy nekkal ci sama wet rek ma di la protéger bu tëdd jotee nag faw nga dem fi gars yi tëdd nga tëdd fa mënta ñàkk ndax ñun ñi dañu am place te ku ci nekk. soo loo wala nga joxe place sa place kenn rek danga koy ñàkk te ñoo ay correctionnel lañ dañ fi yàgg kon su nit ñi fii nga xam ne fa la flagrant délit yi di tëdd maanaam ci paquetage bi dangay dem nga ànd ak ñoom ñu paqueté la ngeen raa nga tëdd foofu tëdd bi yàggul guddi yàggul yëfu góor yàlla la rek su ko defee guddi gi daal dinay jeex nga xam ne da ngay tëdd bu la neexee nga tëddaat am na ñoo xam ne sax ñoom luñ tëddaat dañuy julli ba noppi wóoyal seen ay wirda ci seen ñaan ba asamaan set daal na nga xam ne bu fay jot rek tëdd bi dana changé incha allah ndax ñu bëri ñu tëddoon dañuy jug toog ñeneen ñi dañuy julli am na ñoo xam ne ñoom duñ julli dañuy continué seen nelaw ndax ku nekk ak fa nga yaroo ak nañ la yaree ak la nga xam ne moo nekk ci yow ci diina ak ci ngëm-ngëm ak ci tolluwaay noonu nag mu ne waa baax na ndeysaan noonu xaritam bi maanaam mbokk activisme bi gis na jéego yi muy dox ngir mën a yaatu ci bërëb bi ndeysaan day déplacé di dem ci bërëb par di maslaa ak nit ñi gën a saafoonteeg ñoom ndax yàgg na fa te itam foofu maslaa rek moo la ciy génne mu gis ni muy doxee ndeysaan di dem ci chef de chambre bi di tooñante moom di kaf ak moom di lu bari ci ay bànnee ngir rek mën a gën a nekk ci jàmm ndax chef bi day nekk ku am baat ci biir prison bi te chef de chambre bi moom dafa nekk ak rakam ak lenn ci ay jegeñaaleem nga xam ne ñoom ñoo toog ca VIP ba foofu mu am benn machine bu ñuy tàngalee ndox nga xam ne foofu kafe du fa dugg maanaam pour nga am naan lu tàng faaw ñoom ñooy tàngal ndox jox la nga def ci nes Nescafé mën a naan ñoom itam ñoo am possibilité mën a segg kafe privilège yu bëree bëri ñoom lañ ko jox lu bari luy ñëw ci xéewal itam ci ñoom lay jaar ñoom ñooy am ba noppi nit ñi door a am lu ko may nag da ngay bind bon maanaam bon mooy këyit la boo xam ne dafay nekk ci biir ñu koy bind lépp loo soxla danga ko fay bind loo xam ne lu fa mën a dugg la lu ci mel ni meew café corne bœuf ak xeetu mbiskit yi ba ci xeetu yu bari yoo xam ne dafay am ba ci sax yi ñuy tuxee maanaam mooy cigarette yooyu yëpp day am ci biir te loolu dafay nekk loo xam ne yow mi koy soxla te mënta ñàkk yow lañ koy wutal te yaa koy bind bon maanaam xaalis boo xam ne yaa ko am sa mbokk dugal la ko ci fi nga xam ne mooy compte foo xam ne numéro la boo xam ne ku ne dafa am compte soo amee compte dañ lay bindal ne la am nga fa nangam loo soxla rek da koy bind bon ba jeex ndeysaan nga gis koo xam ne lu mu soxla da koy am ndax mbokkam yi dañ koy dugalal xaalis gis koo xam ne ndeysaan day tumuranke lool dañ koy jàppale ndax ñëpp yemuñu loolu yëpp day feeñ ci biir ci noonu nag lañ fa nekkee nekkit bi nekk nekk bu jéggi dayoo ci ibu ibu guddeen gu njëkk foofu triste na lool waaye jàngale bari bari la ci jëlee da ubbi bëtam rek di xool ubbi bëtam rek di xool di gis mbir yëpp di xool lépp di xool xeeti nit yi bokkul da nga fa gis ay naar yu xees pecc ay tubaab ay wolof xeet bu ne ngay gis ndeysaan loolu mooy kaso kaso dafay misaal yow mal xiyaam wallaay ndax loo liggéeyul ci àdduna maanaam loo fi amul ci tono du la fekk foofu te loolu mooy li nga xam ne moo am biir prison ndax la nga am ci biti ci sa wërsëg moo lay dimbale ndax ci biir cour bi am na fa ay chambre yoo xam ne chambre yu ndaw la maanaam lu mat juróomi nit wala juróom benn wala sax fukki nit rek ñoo fay nekk nga xam ne néeg yu ndaw la waaye day am toilette yu baax ndox mi day doy lekk gu baax mu fay ñëw ndax ña fa nekk ay borom yu doole lañ wala ay kilifa ndaysaan ndeysaan wuute gi ci àdduna ak ñàkk tolloo gi ci nekk waaye ak ci alal ak doole ak am-am dafay feeñ sax ci biir kaso cey sunu borom sunu borom daal mooy yéeme noonu nag la Ibou nekkee foofu nekk ci biir ndeysaan ubbi kanamam gi di maslaak ñëpp am lante ñëpp jàmm waaye nag nit ñi respecté woon nañ ko lool moom Ibou jox ko cër ndax nit jikkoom daf koy topp ba ci biir bàmmeelam te itam jikkoom day feeñ ci melokaanam te Ibou li ñu leen waxoon rek jikko ju baax ak xol bu rafet ak yaatu moo ne ci moom sonn ci ay waajuram ba muy dem baayam nee na ko woon na nga xam ne foo nekk doo sonn ndax sa yaay liggéeyal na ma kon na la wóor ne doo sonn ci dara loolu fenn na ci nekk Ibou ci biir prison Ibou nekk na fa fàtte na boppam ndeysaan ndax nit ñi may gis moom léegi taratul sax ay problème ay problème mu nit ñi lay xool foofa nag mel ni ñëpp ay xaritam lañ maanaam yàlla ubbi xolu ñëpp dugal ko fa fitna ak coonay prison Ibou yëgu ko wallaahi mu nekk mbir mu yéeme mu nekk fa noonu ginnaaw boo xam ne julli nañ timis julli nañ gee ci guddeem bu njëkk foofa bi reer bi jotee ñu andi li nga xam ne mooy reer bi ñaari booli mu nekk xeetu mbaxal boo xam ne dañ leen koy andil ngi ñu ko ibu nag première fois bi amul woon jafe ndax sentirul mbaxal mi waaye sentir na ne togg gi des na noonu xaritam bi mooy mbokk activisme bi nga xam ne ñoo bokk dëkk nga xam ne mooy njaati géem ci biir sàmbur bi daal lu koy xamal ne ko lii moom la ñuy wax jagan mooy añ bi ak reer bi ndekki bi itam mburu la boo xam ne ration la boo xam ne gouvernement bi ñoo ñu koy jox bu ànd ak kafe wala dute day sedd guy nag kafe gi ak dute bi lay dem ci mburu mi yaa ko cay def ndax fii am na ñuy defar omelette te omelette bi du doon xaalis lañ koy fayee ndax foofu xaalis dafa dugg waaye lu ci mel ni meew wala cigarette ngay joxe pekkatu cigarette wala ñaari meew ñu defaral la omelette nga xam ne beneen monnaie la ñuy utiliser ci biir kasa bi day mel ni beneen monde la loolu it am na fa ibu itam ñu xamal ko ne ko nag. Euh, mbokkam moom xamal ko ne ko waaye amul benn jafe-jafe dinaa la topp tool ci li may lekk nga lekk ci incha allah euh, reer bi boo mënee nga mos ci rek te bañ cee lekk lu bari ndax tax koo tax koo demee noonu ndax lekk gi dafa xaw a sant jóob noonu Ibou daal di ree ne ko baax na ibu ci yaram ndeysaan biñ seddalee bool yi ñoom ñaar ñu daal di bokk bool lekk waaye xaritam boobu fi muy toog dafa bokk ki nga xam ne mooy imaam bay jiite ak noddukat bi ñi nga xam ne ñoom it ñu am cër lañ ñu jox cër lañ. maanaam nit ñi gën a féetewoo wàllu diina fa la ñuy toog foofu la xaritam bi toog foofu it la ibu di toog nga xam ne dañ ko féetale sax ci nitu diine yi fa ñuy nekk loolu nag nekk na nekkin ibu foofu ca prison ba ñooñu nag seen boolu añ bi nga xam ne moom leen seen famille indil su dee ñetti bool wala ñeenti bool ku ne ci ñoom dañ koy bokk ñoom ñëpp bu ñu xewloo ci bool yi ba mu jeex ñu ubbi beneen bi xew nga xam ne ceeb yu baax yi ñu leen toggal te mu jugee seen kër ñu koy añee daanaka moom la ñuy reeree day nekk lu neex ci ñoom ndax moo gën fuuf togg bi ñu leen di toggal ñu koy lekk ñu koy wax jagaa bi ndax jagaa bi moom la yàlla xam doy na togg ñàkk pexe la rek lekk ñàkk pexe la ndeysaan noonu la Ibou ànd ak ñooñu bokk ak ñoom xewlu ñu yaatal ko ci lépp ndox mi ñooy bokk di naan ndax foofu naan dafa jafe ndax chambre boobu dafa xatoon lool toilette bi itam dañ koy dañ koy awloo soo bëggee dugg da ngay xaar ki fa nekk su génnee nga dugg ndox mi ngay sangoo ak bi ngay jàppoo yëpp dañ koy limité maanaam ñaari kaasu ndox nga utilise mu nekk chambre boo xam ne daal chambre bu tar la waaye la muy tar tar tar teewul ña fa nekk yaatal nañ ko lool yaatu gu rëy goo xam ne ibu yaatu na ko ci biir chambre ba noonu nag la ibu reeree ba noppi xaritam boobu daal di defar kus-kus ak ndox mu tàng mi nga xam ne chef de chambre bi ak ña muy toogal ñoo koy tàngal ñu ñu sotti ci ndox ba mu sekki loolu lañuy wax sekki moom lañ koy woowee ci biir prison bi sekki boobu ci la jëfandiku boo xam ne ànd na ak meew xaritam boobu defar ko ñu bokk lekk ñoom ñaar ndeysaan ndeke mbokk daal muy lépp kon de dëkkandoo lu bàyyi xel la koo xam ne bu ngeen dajee ci foo xam ne gisoo fa kenn moom nga fay gis dalay mbokkoo kon mbokk lu foor la rawatina dëkkandoor képp koo xam ne yàlla boole neen ngeen bokk koñ wala ngeen bokk dëkk wala sax ngeen bokk dëkk ci réew mi muy sénégalais ngay sénégalais rek jàppal ne am na mbokkoo gu dox seen diggante ndax ba demoon ci beneen pays fekk fa xeet yu bari boo fekkee ab sénégalais yow lay def xarit yow lay def mbokk kon loolu misaal la ci doomu aadama yi ni ñu war a fonkante da nga gis ñaar ñu bokk même kër seeni xol duñu xajoo di boddiwante mbañeel di dox seen diggante moo ne ne bu ñu génnoon ba ca fu sore sore sore gisuñu fa kenn ñoom ñaar ñooy mën a ànd kon rekk waaye nañu ubbi xol yi bëggante noonu nag loolu leçon la bu rëy boo xam ne bu jàngee na ko fa ca prison ba ndax mbokk moomu ubbi na xolam dugal ko ci yàlla baax na sax ba ñoom ñaar jàmm ak rafetoo rek lañ mës a seq ba ñi nekk ci dëkk ba maanaam du rafet rek mu mës sa dox seen diggante nga xam ne kenn du ci fàttaliku lu ñaaw ci moromam ndax seeni relation demeewul woon noonu ndax bokkuñu woon jëmiwaay ndax Ibou ma nga woon Ndakaaru di liggéey moom itam mu nekkoon Ndakaaru nekk activiste bu siiw seen dëkk waaye foofu ñu toogee noonu ba guddi gi di xar noonu ñu daal di jékki-jékki rek dégg ab tàcc ku tàcc tàcc bu fort bi mu tàccoo rek Ibou daal di gis. chambre bi la fa nekk ci nit mat na ñaar daanaka ñaar téeméeri nit yu manqué tuuti ñaar téeméeri nit di coow di waxtaan di kaf di rek ku nekk fa nga nekk yaa ngay waxtaan waaye bi nga xamee ne tàccu nañu rek ñëpp ne salaw noonu mu daal di gis sedd de chambre bi jug taxaw daal di wax ne ay ca waxtu yu jot na kon nañu waajal ñi nga xam ne ñoom ñooy kuréel wala ñi nga xam ne ñooy jàng-jàng sàngam ñu jàng buñ jàngee ba noppi nag heure sàngam ñu daal di lal laltaay ngir ñu mën a tëdd ba suba jàmm bi mu waxee loolu daal di toog bi mu toogee nag ñëpp daal di noppi noonu ñi nga xam ne ñoo war a jàng jàng yooyu daal di waaj ñoom itam ñu dalal leen ci digg bi ñu toog commencé di jàng noonu nag la ko njaati gém gi daal di expliqué ne ko nag lii mooy réglement bi set de bi saa boo xam ne jug na ba tàccu rek bu tàccoo rek lu mu fekk nit doon ko def na ko bàyyi lu mu fekkoon nit di ko wax itam na ko bàyyi ndax loolu mooy règlement intérieur chambre bi chambre boo gis rek am na règlement chef de chambre bu xasee ba tàccu rek maanaam silence la ñuy def kenn dootul wax ndeysaan loolu di màndargal yar ak teggin gu sax dàkk gu sañu tabañ bañ goo xam ni faw day am dox sa diggante nit ak moroomam day kaso daal li mën a jàngale bari na ku bëgg a xam nag lan moo nar a xew ci guddi gi ak nan lañuy tëddee ak itam ibu naka la nar a assister guddi gi ba mu jeex fanaan fa première guddeem ak yee ca topp yëpp ku ko bëgg a xam ñoo ngi lay jox dig daje épisode cinq fii la yemale épisode quatre ñu jox leen dig daje épisode cinq ci lu yàggatul dara incha allah jërë ngeen jëf. daw leen gaaw abonné ci seen plateforme seen production. ndax nag dara du leen rëcc ci seen histoire ak film ak programme yu am solo ñu leen tàmm àndil jamono bu nekk. seen production Islam ca kanam.